Turquie dañu ne woon ñoom bu ñuy jël AIBD lépp dañ koy buux yóbbu ko fële aéroport bi tëj leen ko xam seen yoon nekku ci. kan moo ah, ah, kon kay kon kon moom moo amul woon patriotisme. non déet non dama ne oh non loolu xam ñu daaneel ñu ah, xam nga def nañ ko ba pare ñoom. man dama bëgg li koy dindi léegi. li koy dindi parce que bi may wax ni d'accorduma ci. boobu nguur gi ñoom ñoo fi nekkoon. waaw li ma koy wax ni c'est c'est c'est li ngeen def c'est c'est horreur. expliquer lan moo tax. lii ci économie bi. Hmm. ak ci te dama leen waxoon genn wàll gi dañ ko nar a pàccoo. miiru aéroport ba rek lañ fay bàyyi. dañu lañ def te dama leen daan wax ni dinañ tabax aéroport ba tabax ci ci miiru aéroport bi. loolu laa leen waxoon ma ne lii nag daf fi war a dañ te j'espère que hmm. un jour hmm. solution dina am. dina am ci lii te léegi nag yàlla def na ni am ñoo xam ne ay kii lañu ay vertu la am. comme ni ko Pape Assane waxee. moom mm. am na ci yaakaar. bu wér bu mu wóor ko sax ni. ñii dañu nar a doxal yoon. man xaw ma ndax dañ doxal yoon waaye mën naa ci am yaakaar surtout seen président de la république le le président. Euh, Bassirou Diomaye waaw nitu ku am vertu leen léegi kooku est-ce que loolu dina ko décider dina ko xaacu def ko parce que aéroport bi dafa war a dox est-ce que gis na aéroport bi guddi nu muy leen dafa mel ni si si si dafa ñaaw. baaxul sax ci réew dafa waroon takk di rafet. avenue bi dox nit ñi am envie di promener wu moom ay bagages foofu nga régime lugubre mais oui mais li nga wax boobu noonu noonu à l'image la waaw foofu moom dañ fa bon yaa na am na feneen fu ñu baax d'accord ndax terre baax na waaye foofu dañ fa bon def jëfin boo xam ne dama ko naxarlu moo tax des gis nga man gars xaw ma lu tax des fois yooyu waaw yooyu boo koy def ëpp na ñaari d'accord Aliou mooy moment bi gars yi di taxu. donc il faut que mu tam na wax. waay il faut léegi nag nan lañ def. nañ def suñu kaptalaay kàttan. Ah. moom président la bi il suffit juste qu'il décide que aéroport bi mu doxaat. Hmm. ñi nga xam ne seen kër yaa ngi foofu man su ma doon président de la république. waay dama koy dindi. da nga koy dindi Aliou. parce que intérêt général na bu doon président de la république da koy dindi kon chantier bu rëy moo leen di xaar. ci yi nga xam ne mooy baax ci euh, réew mi mais en attendant en attendant sport yàqul dara n'est-ce pas Babacar sport yàqul dara match tamit yàqul dara daje suñu biir football jékki-jékki rek mun a sarax ci terrain bi ca parcelle la woon Ousmane Sonko sànq. Ah, nii nii eh, nii nii eh, waaw eh, Cheikh wax nga li gàtt na waaye ci gétt gi la bokk. yow wax fu ma jox ma ñaar. Ah? ñaari solution non mën naa bu fekkee temps bi dañoo xooj ma. jox ma ko fii lii mën naa ko mën naa ko. non mën nga commenter lii. di la la Ousmane Sonko moo fekke woon match léegi nii. match malgré li ñuy wax yëpp li leen di xaar yëpp ah. yàqul dara ci mu fekkee ji match amical bu dox ci diggante. ay ñoñom man maa ca Parcelles Assainies par exemple. waaw balaa ñu balaa may wax ci lii. waaw parce que man pour man am na lu ma gën a yitte que lii. parce que euh, Ousmane Sonko activité sportive waa waaw mu ànd ak ay nitam ay chauffeur am muy nekkal ak ay garde euh, loolu c'est c'est Ousmane Sonko personne. Euh, peut-être pour retrouver ay nit yi mu doon nekkal. Hmm. voilà pour man. Euh, décompresser un peu après un dur travail. oui mais pour pour pour man. Hmm. Euh, xam nga man damay damay football xaw ma dara ci football. Hmm. matériel lañ may woowe mais suma gars yi may nekkal. dañuy dem ñu football et puis boobu saa raffermit les liens. loolu dafay wane humilité parce que souvent nga nekk ak nit nga nekk chauffeur am des années nga nekk garde corps am ñu tëj la ci kaso mu falu mu am une distance. ce serait bien pour raffermir les liens pour leur montrer que man la et puis genre marché su ma doon football naa la taagale taagalee saf sap koy taagale moom parce que football la et puis yëfu góor la pour man euh, c'est pas méchant lu lu war a nekk la parce que le sport euh, uni dafay créer ay liens hmm. donc pour man Euh, ça c'est c'est moom quoi am na benn bu mu footballoon tamit moom policier yi. waaw mooy si dëkkër góor gi bi mu génnee tël bal beeg <laughs> yooyu. boo gars yi wax ma ma leen euh, Sonko. da doon naar gi gars yi daf leen doon wan ni da ngeen di jël bal bi ngeen jox ma ko je je prends la balle au donc pour man aussi euh, c'est c'est un c'est un leader et il influencer à la pratique sportive euh, Thomas Sankara l'avait fait dafa institué woon ay jours au Burkina Faso où tout le monde se met au sport hmm. surtout que certaines oh, donc ce serait bien ñu am politique sportive ah. am ay mag ñi di am ay randonnées sportives ñu koy organiser. Euh, def ay natation dans les écoles. donc euh, voilà man sujet bi ma gën a yitteel du Ousmane Sonko fubal na. mais wàllu suuf gi wax ñaar baat ñu dem. premier baat wàllu dëmm lañ ci def dëmm suuf. d'accord ak mëq suuf xam nga mëq suuf <laughs> xam nga mëq suuf yow. voilà loolu moo fi am leneen am fi tong tong. léegi nu ñuy def ba lijjanti ko. ni ñuy def ba lijjanti ko c'est très simple d'abord ñu def l'audit di foncier pour xam qui est qui qui a fait quoi. Ah. ku ci def lu deful. Hmm. ñu nangu ko na leer amul sentimentalisme. Hmm. c'est aussi simple. parce que on peut pas se permettre filao de Guédiawaye <laughs> filao yi doon téye les de sable pour avancer de la mer ñu dindi filao yi. beneen question bi nga xam ne moom moo am texte Sénégal yi nga xam ni Pape Moussa dina si dina ma si dimbali peut-être si droit foncier dafa nekk ay textes yu yàgg. depuis 63 ba 63 après euh, ñu ñu yokkaat 1976 je crois. et boobu dañuy wax ni dañuy immatriculer suuf yi nga xamante ni domaine national la lépp luñ ci immatriculé wul ñu versé ko ci ci état c'est ça non. Hmm. beneen bi comme li muy wax ça a toujours été conflictuel. sur euh, le droit coutumier parce que tu vas aller dans certaines zones au Fouta am na une organisation sociétale am na ñoo xam ñoo distribuer les terres tu vas aller à Dakar euh, mës na ma arrivé pas bu may liggéey fi ma doon liggéey benn lébu ñëw ne ma fi ngay liggéeyee ñun ñoo ko moom man a amal sama yoon new si ba jàpp naa ne daal fii diw moo moom suuf si moo fi am entreprise wax ni j'ai sous mes la cartographie de litiges fonciers oui ma moo mooy gis nga gis nga donc ça veut dire administration au Sénégal dañu répertorier secteur par secteur et boo ko xoolee am na sax fu ñu war a tabax jàqa ne day yaatal def ci morgue waa koñ ba ne ko doo ko fi defee donc problème suuf bombe foncière la dans ce pays des gens sont morts sur des question de suuf qu'est-ce qui s'est passé à Sangalkam Fanaye su ma su ma su ma su ma dëkk y a eu un projet de Sénéthanol mm-hmm. on a voulu prendre les terres des agriculteurs et des éleveurs ils ont dit non ils ont dit ñett reyante moom moo fa am donc pour man li ñu doon wax fan yii la ci corniche bi. Hmm. suspendre les travaux j'avais dit que il faut que kii ñëw na tey te ñoom kenn gënu leen xam wàllu suuf. parce que impôt domaine ci wàllu suuf lañ doon liggéey. kon li ñuy xaar. Hmm. ñu am courage ak ay réformes beneen bi ce qui fait mal. Hmm. aéroport bii nii peut-être Passane am na si son son son opinion mais moi je considère que am na loo xamante ni il appartient aux Sénégalais mais tey ñu xëy ñu toxal aéroport bi. jàmbaar ñu jël aéroport bi daggate ko nag. daggate ko waaw séddale ko seen biir. mais mieux Ablaye Wade suma maam la. Mm. je l'adore euh, mais regarde ce qu'ils ont fait. ci ci ci de Dakar bi. demal quartier sud foire comment on a fait ñii dangay ngay koñ bi kii jàddu koñ bële après on va se retrouver des problèmes au même moment y a des gens xam liggéey nañ ba dee xam nga man benn exemple bu ndaw laa lay jox le camp Cheikhou Mballo tu connais. waaw ay policiers ñoo fa dëkkoon ak seen famille deux cent cinquante familles. leen. jël suuf si jaay ko. grand place bu ma ñibbee léegi-léegi grand place bi may toog du ma ko tudd am naa sama papa boo xam ne policier la. bëggoo ñu nekkoon nag commandement hmm. mais paa bi tey lan lay liggéey dem ci hmm. buntu police pour bind plainte. te liggéey na ba à la hmm. te amul kër. bu vous imaginez. ñaari Sénégal moom moo am. ñi nga xam ne dinañ liggéey ba dee. te duñ waxuma la xulóog maçon duñ gis suuf. foncier bi. mu nekk une véritable boobu maintenant on a besoin ñu ni mu amee courage nii gérer. Hmm. dékku kaso courage bu xeex loolu lañ bëgg sénégalais jox nañ leen le courage ce qui se passe à l'aéroport c'est un carnage foncier et toutes les personnes yi nga xamante ni illégalement comme Pa Assane a dit hmm. le vol c'est quoi Pa Assane le vol c'est prendre un bien de manière frauduleuse copinage bi amoon ci état bi ça n'est de trop et qu'on ne parle pas ay sëriñ bi wala sëriñ bi mënuma ëppale si àdduna bëgg ma ëppale àllaaxira sëriñ bi yore ay te ay këri kër non mais attends amul sëriñ amul homme politique amul homme d'affaires il faut rendre au peuple ce qui appartient au peuple vous êtes là pour gérer le patrimoine des Sénégalais vous êtes là pour gérer les terres des Sénégalais distribuer ces terres de manière équitable pour que l'enseignant mm. puisse avoir cent cinquante pour que ki nga xamante ne le médecin mu am fu mu dëkk mais sénégalais ñenn ñi ñun lu ñu am deewee ko ci loas lu ñu am deewee ko ci loas quelques sénégalais nekk ay privilèges mais bale bi moo tax ma koy jox suy bale bi. non caterpillar. pour nga dëjët non mais xam nga balaa ngay ah, caterpillar. balaa ngay caterpillar. il faut nga indi suy bale. mbóot fel yi génn nga bale pënd pënd yi. caterpillar nay am. képp ku tabax foo xam ne waroo fa tabax nañ ko wekk sànni fële. merci Cheikh Matala merci à Aliou Sow. merci aussi à. à Pape Moussa Sow merci à Pape Assane Seck. ñu ngi leen di gërëm ah, yéen Sénégalais yi ñu doon bàyyi xel fii ci réew mi ak bitim réew. di internautes yi ñu ngi nuyu bu baax ki nga xam ne mooy Abba Sow.